di ñaanal sunu lions yi yàlla na sunu borom suturaal leen ñu jëlee ndam li Qatar indi ko fii fan yee nag mu am benn vidéo boo xamante ni dañ ko defoon vidéo bu triste vidéo bu touché sénégalais yëpp muy ndaw si nga xam ne fekkoon nañ ko ci VDN bi mu toog ak doom ji ah ñu jàppee ko comme sunu sœur people 221 ak équipe bi yëpp jug déplacé wu dem seeti ko defal ko émission booba tey nelawuñ parce que nit ku nekk am nga ay mbokk te am na boroom kër boo xoolee presque heure bi guddi na mais booba tey nelawuñ ñu ngi yor suñuy moto ak suñuy oto ndakaaru yëpp ñu ngi koy wër di jéem a li nga xamante ni mooy ay mbokkam alhamdulilah yàlla ci mbaaxam suturaal nañu ba dem nañu def suñuy enquête ba gis ki nga xamante ni mooy borom këram moom lañ toogal nii fa yéenee waxtaan ak moom euh, sëñ bi dama lay bàyyi nga nuyoo. salaamaaleykum wa rahmatullah. waaw euh, allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. ku mi Abdoulaye Balde. waxal olof. mas noo tudd Abdoulaye Balde. Abdoulaye Balde Abdoulaye Balde. ci Malika montagne. yow yaay borom këru Aida. maay borom kër Kumba Kumba la tudd Kumba Sow tuddul Aida Kumba Sow la tudd dëkke ñàgg. Kumba Sow Kumba Sow. dëkkee ñàgg dëkkee ñàgg. fan ngeen xamante yéen ñaar. maa ngi xamante ak moom Kermes Sarr. Mhm. Kermes Sarr moom moo ñëw si sama rak rak moo xamante ak moom rak sama rak day jaay bitig mu mhm. xamante am moom mu boole ma am moo mu indi ma ko ba sama nekk. Mhm. ñu waxtaan mu bugg ma ma bugg ko mu wax ma mu jox ma numéro téléphone yaayam ma waxtaan a yaayam ma dem ba si yaayam waajuram ñu may ma ko te sunna muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mhm. ma takk ko mu ëmbal ma loolu ban année la boobu 99 99 ba tey yéen a ngi sëy 2019 2019 ngeen xamante waaw nga takk ko kañ 2019 laa ko takk mhm. waaw bu ma xamante am moom 2019 nga takk ko 2019. ma takk ko 2019 mu ëmbal ma ko. Mhm. de mu am mu am doom deux mille fin deux mille dix neuf deux mille deux mille vingt. Mhm. mu am comme ñu tudd ko. doom ji nan la tudd. doom bi rasidatu sama awo bi laa ko tuddee. kon ñaari soxna nga am. ñaari soxna laa am. Aida moo nekk sa deuxième femme. Kumba mooy sama ñaareel jabar. Kumba man ay rek laa tàmm. Kumba la tudd. ah xale bi sa aawa nga ko tuddee. waaw sama xale bi sama aawa bi laa ko tuddee. mu ngi tudd Rasidatu Sall. Rasidatu Sall. Rasidatu Sall la xale bi tudd mm-hmm. Mm-hmm. waaw. la xale bi tudd Rasidatu Sall. waaw kay di sax moom sax sànni na kay di ndax dafa am problème bopp. Mm-hmm. day doxoone toujours man maa koy muñare di ñëw fii di may door wax lu nekk. d'accord dinaa ñëw ci loolu. kon yow ñaari soxna nga yor. ñaari soxna laa yor. da Kumba moo nekk sa ñaareelu soxna. Kumba mooy nekk sama ñaareelu soxna. Mhm. waaw. Euh, depuis kañ ngeen gëj a gisante. moom ñetti fan rek la ñu gëj a gisante chaque jour day ñëw fii day ñëw fii ma bàyyi ko ndekk si bitig mooy jaar foofu mu ñëw jàll xaalis bi ba pare jaar fii. ban xaalis. xaalis dama koy bàyyi foofu ndekki mille francs pour sama doom bi moom mu jaar foofu jaar ko si bitig bi. bitig mu am situation yi mu mel nii. waaw situation yi mu mel nii mu bàyyi ko foofu mu ñëw mu jaar foofu mu ñëw si ba si sama place pour suus bi muy ndekke fi muy dem jaar nii dem côté Gaddaay muy toog si falaw yi côté côté falaw yi ci tali bi noonu. Mhm. dégg naa si passerelle bi lay toog. Mhm. keroog ngeen fekke ko foofu. Mhm. ngeen jàll ko. Euh, dugal ko si tiktok bi. waaw ni ko laajee noonu loolu affaire bi Euh, yow condition yi muy dund nii ci mbedd mi. bi nga ko xamee en tant que borom këram. lan moo tax jéemoo ko récupérer yóbbu ko sa kër. kooku moom moom moom dafa neexul nekk samay sama situation yëpp la yàq. Mhm. bu ma ko takkee amoon na problème laal yi la commencé daj di yàqu. mais avant nga koy takk dara dalu ko woon. ba ma ko takk xam naa ne dara daloon na ko waaye leeraluñu ma. Mm-hmm. leeraluñu ma am na lu si nekk lu nekk si moom. parce mm-hmm. que ma ko takkee laa xoor a xam ne kii daa am dépression bopp. Mm-hmm. waaw daa am dépression bopp. dafa wér dafa wér di surtout ma alxamisa yi daf may jàpp di may door lu nekk la may wax. par alxamis par alxamisa lay gën a garaaw. te alxamisa lay gën a garaaw. waaye si des moom tànne na. bu tànnewul moom day ñëw sama bagage yëpp yàqu na ko yàq daal bi sama ñetti mat laa bu mu fekkoon làkk na benn bi ñaar yi si des mu xotti ko waaw yëpp la xotti sànni laal bi fu mu ne nii amu fu may tëdd sax. parce que man bi ma defee samay enquête euh, wër naa Malika mais ñu bari sax parce que euh, du ma tëb tëb ni yaay borom këram te ëmma ci lu leer. damaa dem ba wër bi ma wëree. ñu ni ma nekkoo woon sax fii am na fenn foo njëkkoon a nekk waaye moom moo la doon sonal. ba tax nga génn foofu noonu. waaw noonu la demee man moom moo ma sonal foofu ba ma génne foofu man itam maa ngi woon dëkk montagne côté bale côté daara ji léegi maa ngi côté côté quartier Ndiougal. foofu waaw léegi maa ngi moom moo ma sonal fale ma ñëw parce que ci kaw montagne bi sax dëkk naa foofu moom mu làkk foofu néeg bi seeni daaru génne ma jox ma sama avancé benn weer di 000 dong laa doon fay ma ñëw fii si ci côté mbobos bi mm-hmm. boobu tamit bu ma ñëwee foofu néeg boobu tamit mu dajji buntu yi mm-hmm. yóbbu ko yenu ko aw foofu néew néew basi mbaar ndey ngom yenu ko yóbbu ko xaw ma fan la ko yóbbu buntu yaa fenêtre yëpp yaa na ko yóbbu ko te néeg boobu da dañ ko pour ñu nekk fi ba tey léegi amuñu fu amul fu muy nekk moo tax mu dem noonu mu obligé day dem si yaayam tëdd foofu. ana ay waajuram. waajuram mu ngi fii ñàgg. papaam mu ngi dund yaayam. papaam moom dundul yaayam moom mu ngi dundu mhm. waaw yaayam ah doomam yëpp ñu ngi foofu. macha allah est-ce que tey bi problème yi ni amee daan nga dem ci ay waajuram doon leen wax seen doom kat lii ak man lay dund ak man. man kay wax naa leen dem naa foofu ay fois fois ba benn bi bis ma dem foofu ah, ñu ne bul fi ñëwaati. Mm-hmm. waaw ba mu ne bul si ñëwaati ma ne laa loolu déedéet loolu waroo leen kii sama sama jabar la sama doom la waroo leen wax bul bul fi ñëwaati. Mm-hmm. waaw ba tey après mujj bi. ma mu ànd mu ne ma ma ñëw ma ñëw foofu yaay ji nee utal na ko foofu néeg ma ñëw waxtaanee am moom ba pare ma koy jox avancé ma jox ko jox naa avancé bi sax waaye avancé bi xaw ma da koo sànni xaw ma da koo lekk. moom moom moom moom Kumba nga ko jox. waaw moom Kumba laa ko jox naa ko neeg boobu néeg boobu mu yaay ji sax taxaw na pour ma jal néeg bu foofu. ci fu mu dekke waaye nangu ko. waaw waaw côté boobu mu ñëw fii temps yi temps yi di passé bu mujjee ndox bi bu mu ñëwee mu jal bunt bi àndaa moom dem si yoonam. ba tey jii day jaar fii rek jàll dépense am ñëw fi jaar fi jàll ndeke dem yoonam waaw léegi léegi parfois sax attan nga taxaw moom mu ne mu ne mu ne ma du ma sa du ma du ma jëkkëram parce que ci biir vidéo bi laaj naa ko mu ni ma hmm. sama borom kër dafa dem ci keneen bàyyi ma waaw xanaa xanaa moom moo dem moom moo dem bàyyi ma man moom macha allah dem mu bàyyi ma dama bëgg ku may jàppale ku may jàppale si moom ku am ku mën a jàppale si moom mu wer mu tànne daal bugg naa ko mhm. waaw mu jàppale ma mu jàppale ma doom ko mënoon naa ko bu doo doom bu góor ma ko indoon si police bi ñu ñu ma ko ma ma récupéré ko ma yóbbu ko ma yóbbu ko sama rakk bu jigéen wala sama mag bu jigéen ñu téyal ma ko mhm. waaye comme doomu jigéen comme doomu jigéen la man ko xaaral rek ma bàyyi ko am moom mënu ma koo nangu mhm. puisque ñi ma dekkal noo yëpp fii nii sax si tali bi day ñëw fii di may door tali bi yëpp di may gis. moom moo lay door moo may door ma am gàcce boobu. ba gars yi léegi léegi lu mu lu ñëw rek sama juróom-ñeenti gaz bu mag yóbbu na ko fu mu ne nii sama jabar sax amul lu muy togge di doon togg foofu damaa bëgg mu ñëw foofu añu fa léegi loolu parfois mu ñëw fo añu fa jàll na gaz boobu yóbbu ko. léegi lan moo tax léegi lan moo tax yow bi nga ko gisee mu nekk ci situation yi nii sonn jéemoo ko téye nga yóbbu ko police wala nga jéem ko jël yóbbu ko sa kër mu nekk fa nga bàyyi ko ci mbedd mi non bàyyi ma ko si mbedd bi de bàyyi ma ko si mbedd bi moom moo bàyyi boppam si mbedd bi bàyyi ma ko si mbedd bi puisque man won naa ko néeg fu muy dekk mu ñëw yàq ko trois fois ba trois fois luweel naa ko ñaari néeg benn ñee néeg bu ma jël bi fu ma nekkee nii ñoo takkaarlu ak fu ma nekk a néeg boobu mu ñu ma abal boobu waaw daanaka sax man maa ko jël obligé bugg a jënd ndek dëkk fo wax naa ko bu ma ko waxee xam naa loolu moo tax mu dagg bu daj bunt bi yóbbu ko waaw kii mooy témoin bi muy dajji bunt bi yóbbu ko ku fi ko jàppoon bunt bi mu ngi nii toog. Mhm. mun ngeen ko laaj. bu ñaata doom ngeen am. benn bu doom boobu lañu am amoon na noonu beneen doom bu ma koy takk laataa ma koy takk amoon na beneen doom. Mhm. doom bu góor doom boobu moom wérul. Mhm. waaw kii nag yàlla def na moom weer na amul benn problème moom. kanaa lu mu koy téye noonu di boot am moom àndaa moom coono bi rek. coono bi rek moo ko jàpp. mais est-ce que boobu ba tey yaa ngi jéem a def ay démarches pour moom mu ñëwaat sa loxo wala pour ñi nga xam ne mën nañ ko jàppale ñu jéem ko jàppale pour mu faju man daal ku ma mën a jàppale pour mu faj mu wer daal laa bëgg wax dëgg yàlla bëgg naa ko baax bëgg na bu baax ku ma jàppale daal bëgg ñaan naa ci. ku am dimbali ku nekk mun na si mun na si jàpp. waaw mu am fu muy nekk am kër am fu muy nekk bëgg naa daal. waaw ku ko jàppale mu jàng doom ji toppat ñu toppatoo. bugg naa ko bu baax ma ko gisee daal bëgg naa mais est-ce que moom lu mu daan dox bu guddi jotee daan ngeen gisante wala. daanaka ñëw mi minuit sax 2 heures du matin day ñëw ba sama ker day am ñu koy gunge ba sama kër mhm. waaw moom heure boobu lay daanaka guddi gi lay génne day ñëw ba am naa ne rab bi fu mu ko toggaloo rek foofu lay foofu lay togg. Mhm. fu ñu ko yóbbuloo rek heure bu ñu ko yóbbuloo rek foofu lañ koy yóbbu. parce que am na sénégalais yu bari yu wax ni euh, yow yaa jéem a teg stratégie bi bu ko defee muy jéem a ut ay social wala ay ndimbal ci mbedd mi. non noonu non du man de man kay dama pour mu uti ay dimbali si mbedd bi ñàkk rek moo indi loolu. Mm-hmm. tolof tolof àddina bi rek moo indi loolu. Mm-hmm. waaw loolu laa si am li ma wax. Mm-hmm. waaw mais depuis boobu ba tey ay waajuram est-ce que jéemu ñoo ñëw ci yow pour ngeen jéem a xool moom fan la nekk ak ci yan condition la nekk. non ñëw ñëwuñu de. ñëw ñu ñëw ñu ñëw ñu parce que wax naa leen jàppale leen ma teyal leen ma sama doom loolu moom wax naa leen ko. teyal ma sama doom jàppale ma teyal ma sama doom waaye yaay ji mënul obligé teye ko gis yor yor na benn magam magam boobu wérul mm-hmm. waaw mm-hmm. looloo tax. sax vidéo bi nga xam ne waa people 221 dugal nañ ko euh, nit ñëw na ba ci yow ni la sa vidéo soxna si laa gis bi ko gisee lan nga yëg. ah sama yaram daw na ci de pisee waroon man bu xaw ma da nga siiti dugal du ko siit dugal. pisee mm-hmm. waa xam naa ne daal coono bi daal sama yaram daw na si sama doom. waaw fii la may bàyyi chaque jour di dem. day naan fi café dem yoonam. sa doom kañ nga ko gëj a gis. jour boobu laa ko gëj gis jour boobu laa ko gis mhm. waaw. actuellement chaque jour ñëw fii àndaa mhm. waaw àndaa moom ba fii ndekke dem waaw waaw jour boobu laa ko gëj gis. actuellement est-ce que bëgg nga xam sa doom ci lan nga ci la nekk. waaw instant bi moom loolu laa gën a yiite sax yiiteel sax waaw xam fu mu nekk ndax mu ngi si jàmm doom bi moom mi sax bëgg na ma trop wax dëgg yàlla. bugg naa ko trop amul benn problème macha allah te ree di kaf man xamante am réante am wallaahi bugg naa ko trop waaw ndax daanaka ah doom bu jigéen la moo tax man kiiw ma ko bugguma ko takkale yaa maay aw ma nu may mun lu ma si mun il faut mu tàggale ko parce que bu ñu ko tàggale wul moom du am jàmm mu ngi koy boot fu nekk àndaa moom fu nekk taxawaal fu nekk waaw ñàkka sama ñàkka pee parce mun ma koo téye mun ma koo jàpp mun ma koo yore man góor laa bu doon jigéen dinaa ko mën a téye waaw. moom moom daal damaa bëgg ku may jàppale rek te yàlla laa tàmm te yàlla ma sama doom waaw bu dee fekkente ne sax chaque jour dama koy jox sax da mënta doon li ma ko mën a fay rek ma fay ko wala mu dee lu ma mënta fay ma fay ko mu jàppale te yàlla ma sama doom. jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen a ñu doon suivre ñu amoon mbégte ci ànd ak yéen ni ñeen ko waxee rek depuis boobu ba tey lekkuñu ba suur naanuñu ba màndi ñu ngi daw guddi di daw bëccëg pour jéem a li nga xamante ni mooy ay mbokkam. alhamdulilah yàlla def na ci jàmm ak salaam gis nañu borom këram ak famem euh, li ci des nag mooy ñi nga xam ne ñoo yor ayda ñoom la ñu war a àndal ànd ak borom këram mu dem seeti Aida ñu jéem a tournewaat aussi tamit dem kër yaayu Aida bu ko defee jéem koo delloo ci ay mbokkam jéem ko faj mu nekkaat ci ay conditions yu baax di leen sant bu baax a baax di leen gërëm yéen ñi nga xam ne yéen àndoon ak ñun depuis coow li yéen a ngi woote guddi yéen a ngi woote bëccëg ñi nekk ci diaspora bi 4 heures du matin sax dañ la koy woo ngir seen yërmande ci ki nga xamante ni mooy Kumba ak doom ji ah alhamdulilah ñu ngi leen a jox dig daje te suñu yeneen émission fii ci people 221 jërë ngeen jëf.